àllarba jëm ci màggalu sëriñ Abdou Khadre ñu ngi sant bu baax gouverneur mm, ci taxaw bi nga taxaw jataay bi ak taxawoon war rafet bi nga ko taxawoo tabaarkalla yàgg nañ fee ñëw yàgg fee teewe eh, taxawaay yi nga tey itam bokk na ci taxawaay yi gën a rafet yi ñu fi fekkee xam xel dal na bu baax a baax ci daje gi ñu yow ñi ngi daje ñi ngi door yow fii tey yaakaar naa fii dafa tàmbalee ñëw di seer ëpp na fukki at ñaar fukki at war na ko waaye tey nag mm, gisaat nañ xarkaan bu bees boo si ubbi boo xam ne daalal na suñu xel ci ci sa jotaay fii ci région bi kon nag yàlla na yàlla taxaw ñu ngi sant bu baax itam nag euh, ñi nga xam ne ñoo ngi seq liggéey bi teref yi moom yàgg na seq liggéey bi moom itam toorka la mm. defal na ci yees yeesal yu bari yoo xam bi nga fi dikkee ci mbakki it moo tax mm, ma daje bi ñu waaj a daje nga xam ne moom la ñuy def le vingt neuf saa bu dikkee moom dañ ciy taxaw taxaw mel ni bii nga taxaw ku ci ne la nga waxoon mu taxaw waat la mu xam foo ca toll. Hmm. kon nag ñu ngi koy di sant ñëpp nag monsieur le maire moom day sunu xarit mm, sunu wëllëre noonu mu ko waxee bari na ñu koy teg fii ñoo xam ne li tax ñu koy teg loolu mu wax moo tax teguñu ko en tant que danga ko teg en tant que taalibu Sëriñ Abdoulaye boo xam ne daa bokk ci kër Sëriñ bu Fadil boo xam ne ba mu nekkul ci maire bi màggal gi masaa jot dañ ko daa yónnee ay lettre di ko teg ay mbir moo tax saabu bu màggal gi jotee daana ko teg loo xam ne maire bi taxul ñu teg ko ko waaye taalibe bi ngay tax ñu teg ko xam nag loolu ñu ngi koy gërëm baax di ko sant ñu ngi sant ñi nga xam ne mooy it comité organisation bi nga xam ne ñoom la àndal ñoom it nga xam ne saabu bu tollee fii ba egg ca màggal ga dañuy bàyyi si yëpp di ngir la defar bis bi ak lu ko yéwénal ñun ñu leen di gërëm ci turu Serigne Cheikh Mbacke di leen sant bu baax a baax la xamal bu baax a baax la ñu ngi sant bu baax presse bi itam nga xam ne fi ñu ko tàmbalee ci CRD bi ba keroog ñu egg ci cérémonie officielle ba saa bu leen soxlaa ñoom ñëpp danañu fekk suñu ànd ko ñoom ci liggéey bi kon ñu leen di gërëm te di leen soññ ci taxawaay bi nañ ci jàpp lu man lépp mm-hmm. kon baax ci gàttal daal lii leen doon wax mm-hmm. loolu di leen sant bu baax di woo ñëpp nag ci bis bi nga xam ne ci leen jëm suñu bisu Cheikh Abdou Khadre Mbacké hmm. bis koo xam ne si liggéeyal yàlla ak liggéey yonent bi liggéey Sëñ Tuubaa rek moo doon ay tànkam hmm. nit ko bëggoon ñëpp amul doon fu baax fu lu dégg ak fu ko dégg mel na ne moo ko jëf mel na moo lu ko jëf loolu la bindee woon lu baax rek la bëggoon doon nitul jëpp moo tax saabu ak ci bisam bi ñëpp dañuy jàppale seen bisa kon nag ñu ngi koy yëgalaat ñëpp daal di ñaan ñu dugg ci bismillaahi rahmaani génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin ne mooy suñu jëwriñ alxalifatu am sa yàlla jublu ci màggal sëñ Abdou Khadre mu ko waxee nekkoon ki nit ku màgg nekkoon suñu imam nekkoon suñu xalif général kon boog lépp luñ ci def rek def nañ ko ngir sagal ko waaye defal nga ngir kóllëre ndax li mu ñu jëriñ ci suñu àdduna ci ragal yàlla ci wàcc suñu bopp di rafetal suñu dëkkin ak suñu ay bokk euh, loolu nag bu amee gouvernement bi jël na ay matuwaayam pour ànd ak njaboot gi sëñ si di jiite leen pour jàppaleen ci màggal googu te ni ma ko waxee léegi alhamdulilah ñaari weer kepp ñu dem ci grand magal kon beeg lépp lu ñu fi def daanaka day waajal grand magal daf ñuy dimbali moo tax fii CRD bi am nii fu baax la lépp lu ñu ci def rek du luñ ko yàq wala luy naxasaay dina ñu dimbali ci kanam bu ñu àddina yépp wuyuse kon boog lu jëm ci wàllu sécurité waa sécurité bëgg nañ mobiliser lépp lu ñu am ci ay nit indi ko ci ay barrière muy xam police mu xam gendarmerie ñoom wax lañ ko léegi sapeur pompier waxi noppi lu jëm ci Senelec moom parce que nee na ne dina dimbali ñëpp ñi nga xam ne déposé nañu ay demande waaye dina am équipe maintenance boo xam ne moo fay ne boo lépp loo xam ne rek nar naa paan wala nar yàqu mu taxaw ci ginnaaw ba ñu defee dëkk bi hors sa si seen ay pexe ñoom xam nañ ni ñu koy defee ba nga xam ne Euh, courant du fi coupé loolu dal na xel ma boole si ne ñoom sax taxaw nañ jàppale sapeur pompier ndax sapeur fi nga xam ne day inondé daf ci am yoo xam ne dañuy soxla ay jumtukaay liñ naan électropompe électropompe ni ko comme li ko tur bi wuyoo ñoom courant lay daw il faut que Senelec wàccal leen foo xam ne moom la ñuy branché pour mën a pompe ñoom dinañ leen ko defal sapeur boo leen jógee. di ngeen dem ci Sédélec parce que loolu moo des soo leen demee ci ñoom pare nañ pour ñëw wàcceel leen ay descente ba ngeen mën a branché seen machine mu pomper lépp rawatina nag boori kër sëñ euh, Bas porte parole foofu ay ñaar fukki ate foofu moom daal dëkk di ji de yaakaar naa ne te jege na fu nga xam ne ONAS def na fa euh, système am bu ko defee ngeen def fa rek électropompe mu pompe lépp yóbbu ko ci yóbbu ko fañ koy war a yóbbu ba nawet bi nga xam ne suñu borom dimbali ñu alhamdulilah ba tijji na di indi dara loo xam ne mën naa gàllankoor màggal gi waaye am na ci benn point boo xam ne dafay laaj hydrocureur bi ñu xayma point boobu bu amul procureur dina gêner lu bëri ci màggal gi loolu nag ONAS taxaw na pour teg fa benn hydrocureur mooy ci station Shell bi parce que ñoom foofu dañ ko soxla daf ci dañ fa am projet waaye ginnaaw projet ba pareegul léegi te ndox ma daf fay mën na gàllankoor lu bari dañ fa yóbbu hydroculeur loolu daal nekk na point boo xam ne soxal nañu lool ndaxte euh, euh, bu indee mbënd ak yooyu dina tax nit ñi dem beeg dikk bi daf koy gàllankoor dina gàllankoor lu bari dina gàllankoor sécurité parce que nit mën nañ ko bëgg évacuer duñu am fu ñu koy jaarale euh, plan de circulation bi fi oto yi war a jaar bu ndox ma fàttee foofu du mën a dem donc inondation li muy gàllankoor moo bari ak naa ne yaakaar ne bu ñu defee foofu benn hydrocureur électropompe bu ñu def ko booy sëñ Bass Abdou Khadre yaakaar naa ne màggal gi du am benn problème dinañ mën a màggal ci jàmm. Euh, beneen bi mooy wàllu ndox xam ngeen ne itam màggal gu day na ndox daf ko yore waaye nag dañ demoon dañu amoon ñetti forage yoo xam ne ci Touba euh, actuellement dafa paanoon waaye OFOR jàpp nañ ci ba bi ñu defee réunion fii dimbali nañu ba indil nañu pompe bu bees. ba benn forage bi pare na mu des ñaari forage yoo xam ne ñoo paan benn nag muy forage Bagdad boobu moom mënul ñàkk baax avant màggal ndax comme ni ngeen ko waxee léegi euh, lu bari def ci dugg mu und lu bari ci barke waaye ci stratégie maanaam mënul ñàkk am na nañu fi joxe kàddu ne parce que kenn nañu euh, euh, jënd pompe daal di ko ci def ndax mu mën a baax loolu laan wax léegi baax na ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaye ñu baral seen loxo tuuti ginnaaw yor nañ njëg pour dem jënd xàmmee nañ lu baax xàmmee lu xaw a yées xàmmee loo xam ne kenn waru ko jënd xëñ na mën naa ñàkk mais lii baax nañ ko teel a xàmmee te dem jënd ko comme mu ngi ci marché bi nekkul mbitim réew mu ngi senegal te xàmmee nañ ñetti qualité yëpp nañu jubal ci qualité bii gën daal di ko jënd installé ko ci semaine bi ndax gàmmu gi euh, màggal gi quinze jours moo ci loolu laa doon wax léegi ne baax na naam waaye liggéey am na fooy toll da ngay baral sa loxo mën naa bara mën naa gaaw te baax donc nañ baral suñu loxo te mu baax loolu mooy euh, message bi ma leen di lancé ci côté boobu ONAS tam euh, am naa yaakaar ne comme ni ñu ko waxee defar nañ seen jumtuwaay ba nga xam ne fépp foo xam ne ndox mënoon na fa taa di yàqal nit ñi ci dem beeg dikk bi ñu daal di ko defar eaux fore forêt liñ fi wax laa mën a jàpp mooy euh, euh, autorisation yi daana tardé daana ñëw sax waxtu woo xam ne kenn du ko mën a jëriñoo mais moom li mu wax mooy dinañu fexe ba mu ñëw ci semaine bi maanaam xëñ na denc jot kon 10 jours avant lu bon bon alors que ay 3 jours avant ñetti fan lañ ci daan jot daaw ñu ko mën a jëriñoo moom nee na dina góorlu ak direction euh, de l'environnement n'est-ce pas des eaux et ba ñu mën a jot ci autorisation yooyu loolu laa mën a jàpp te loolu moom na ko ñëpp dégg te xam ne loolu ba ba ñuy dégg leneen loolu daal moo fi moo moo mën a am nañ jàpp lool te ñaan yàlla loolu mën a am ba ñu mën a jariñoo matt moomu lu jëm ci dowaat yombal gi incha allah dañ leen ko yeggee ba ñu yombal leen dem beeg dikk bi ak lépp loo xam ne daal xëy na dafa jëm ci màggal gi ñu dimbali pèlerins yi ñi nga xam ne dañ ciy ñëw ñu mën koo indi te duñ ci am benn problème service d'hygiène tam ah foofu xel maire dalal suñu xel dina ko jox produit dina ko jox carburant ñu mën a pompe kër yëpp cinquante kër yi waaye commerce itam dina ñëw dimbali service d'hygiène ñu dimbalante ñoom ñaar ndax produit yi ndax gan moom euh, màggal bu amee ah lu ne la ñuy gis dañu ay produit périmé yoo xam ne ni dañ koy indi di ko jë di ko jëfandoo wala bëgg ju ko jaay bu ko defee bu ñu boolee seen doole yaakaar naa ne ndugg euh, dina am te ndugg mu baax lay doon. kenn doo indi lu périmé wala loo xam ne bu nit ki ñibbee këram da indi loraange loolu dalal suñu xel marché bi li fa war a am dina fa am te lu baax lay doon lu mu ucc mucc ayib yaakaar naa ne daal loolu buñ ko boolee boole suñuy doole sapeur pompier taxaw ñamu daan indi mu indi leen fexe ba inondation yi ñu moytu point yooyu traité ko teg fa hydrocureur boo xam dañ koy prépositionné ndax suñu màggal gi ren dafa am lu mu àndal ànd na ak nawet ndax alhamdulilah nawet bi tijji na xam nga fan yi taw yi mu taw fekk 15 jours su tawaatee taw yu ñu mel ah fa war a am ndox yëpp dina am ndox ñu fexe ba fii électropompe war a am am fa fexe bi hydrocureur war a am mu am fa loolu moom la ñuy ñaan parce que fagaru moo gën faju loolu am nañ ci yaakaar bu baax a baax ne buñ ci yàlla dimbalee suñ ko taxawalee loolu dina mën a am maire ñu ngi koy gërëm dëgg yàlla ab doxaat ka parce que ñi war a dimbali ci service yooyu yee bari na waaye képp kuñ ci yëkki kaddu rek moom fexe na ne dinaa taxaw pour jàppale la ci li ngay laaj moo xam ci euh, hygiène la ah képp daal képp ku fi yëkki kaddu te maire war see soob loxoom amul benn yoon bu ne bu mu ne maire mënu ko dina jéem ci kentu lay kantan loolu dama ciy gërëm di ko santé au nom du CRD ne maire bu disponible la bëgg a jàll muy nekk ci euh, wetu administration di leen jàppale kentu lay kàntanam tam loolu aussi jar na jar na rafetal ndaxte moom ci CRD bi la bokk waaw ci ci ci ñu la bokk moom représentant état la aussi waaye mu ngi ciy def dox waaram bu baax loolu baax na ma souligner ko aussi pour encourager ko de li ngay def gis nañ ko nga nga nga continuer ci ci baax vraiment ñu ngi am yaakaar ci yow bu baax a baax a baax a baax loolu daal moo nekkoon point yoo xam ne tey euh, mënoon nañ ko wax euh, am yaakaar ne Euh, le 3 ba le ci cérémonie officielle bi yaakaar naa ne màggal gi dina nekk màggal bi nga xam ne mu ci ayib lay doon ba lépp luñ ci ñaan yàlla may ñu ko incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullah wa